Lam Amar di doom ci Ahmed Amar ak i xaritam yile suñu moywul dinañ leen defeere ca ni ki alarge bi bu ñu sukkandikoo ci enquête bi waa itam ci autopsie bi nga xam ne def nañ ko ci Iba Thiam nga xam ne dafa ñàkk bàkkanam ni ki guddi ajuma jàpp samedi ci benn xew-xew bu ñu doon amal foofu ca Ngor muy soirée privée ci benn appartement bu nekk foofu ca Ngor kilee di Dame Amar di doom ci Ahmed Amar bile ak yeneen juróom-ñaari nit ñu ngi leen di tuumaal non assistance à une personne en danger maanaam ñàkk taxaw bi nga xam ne ñàkk nañ koo taxaw seen xarit boobu lee di Iba Thiam bi mu nekkee ci ay jafe-jafe ba jaar fa ñàkk bàkkanam waaye itam boole seen doole ngir def lu bon di association des malfaiteurs waaye itam violation de la loi sur le couvre maanaam ñàkk topp loi bi nga xam ne moom moo di couvre di li ñuy tere nit ñi ñu génn li ko daree 8 heures ci guddi jàpp 6 ci suba ba nga xam ne commencé woon na depuis 24 mars bi weesu bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi nga xam ne def nañ ko ki nga xam ne moom moo di Iba te gaañu woon ci xew-xew boobu boobule autopsie bi wane na ne dafa jëloon drogue bu bari maanaam overdose drogue bi mu utiliser woon de drogue dure la lu sukkandiku nag lu jëm nag ci li nga xam ne moom moo di violer loi maanaam ñàkk topp loi bi enquête bi wane na ne kile di Iba bi mu egsi ci boobu boobule juróom-ñetti waxtu ci guddi romb na te ki ko gunge woon benn policier la bu yor benn motard muy motor yu ngande yooyu di ànd ak ay cortège bu weesoo takk der boobu nga xam ne moom moo gunge woon Iba Thiam mi ñàkk bakkanam ci yile xew-xew ak tamit amadu ñaan mi nga xam ne moom moo fatoon Dame Amar ci jamono ji nga xam ne birgate de la gendarmerie de ngoro ñu ngi ko doon wër ngir wax joojule juróom benn ci ñoom ñu ngi leen di topp te li leen di topp mooy violation de la loi sur le couvre-feu maanaam ñàkk topp bi nga xam ne ñàkk nañ koo topp loi couvre-feu bi maanaam tere nit ñi ñu génn 8 heures ba 6 heures itam ñu ngi leen di toppee association des malfaiteurs boole boole seen doole ngir def ñaawteef waaye itam usage de dorog maanaam jëfandikoo dorog waaye itam war a taxaw nit koo xam ne mu ngi ci diggante dund ak dee bi nga xam ne waroon nañ koo taxawu seen xarit boobule di Iba te defuñu ko ci ñooñu nga xam ne ñu ngi leen di tuumaal nag bokk na ci Dame Amar ak copinam boobu ñu doon àndal di doomu France di woyoo ci turu Ayla benn serveur ci benn restaurant bu nekk foofu ci route des Almadies waaye itam Fatima Rigal ñu gën koo xam ci Poupette di benn boîte de nuit jaajataal di liggéey ci benn hôtel waaye itam ak ki nga xam ne moom moo di luti ba ñenn si ñoom ñi le sax de amoon nañu ak yoon jafe-jafe te dara waralu ko lu dul woon dañ doon jëfandikoo li nga xam ne moom moo di dorog